Uras Info. Ribari Gao. Tchewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du Tedegu. Notre force. Le traitement de l'info. journal b de Les Échos ëttu yéenekaay Sénégal dañu ko salfaañee yàqate ko yexeet mbir mi ma nga am démb ci diggante midi une heure ñu jëf-jëf jooje du ñenn ñu dul taalibe mu mustarsidiina wa mustarsidaati ñi nga xamante ni ñoom ñoo jokku ci sëriñ Moustapha si ñoom nag ña ngay xamle ne jëf ji ñu wel ñoom ñooy ñëkk a def la waral mooy journal bi dafa fësal ab xabaar di wane ne seen sëriñ bii di sëriñ Moustapha si dafa am coronavirus maanaam covid 19 ñoom saalibe yi ñu gis ne boobee xibaar dëgguwul looloo fajal seen bopp dem ca journal ba te ko yaxeet yàq fa ay bagage yu ci mel ni juróom-ñetti ordinateur benn écran plat ak yeneen i bagage yoo xam ne yàq nañ ko foofe mbir mi nag naxari taskatu xibaar yi ba ñu yëkkati ay kàddu di ko rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Synpics jëf ju ñu mel tax na journal bi di Les ko tey jile génnewul benn information ndax daanaka démb liggéey amu fa Habib Ndiaye di responsable des jeunes bu parti PUR génne na ab xabaar di xamle ne jëf ñu mel def te yàgg nañoo seelu ne journal bi di Les Échos mësul wax ci ñoom lu baax rawatina seen sëriñ bi di sëriñ Moustapha Sy moom nag ma ngay xamle ne jëf jële avertissement la bu gaañ ñi waxatee li ñu mel ñoom it ñu daal di def lu gën a pire mbir mi ma nga commencé ba journal bi génnee ne seen sëriñ bi di sëriñ Moustapha Sy ngeen ko tëral ci hôpital principal ndax jàngoro ji di Covid 19 ca la gaañ ñi defee jëf yu ñu mel may laaj ban réew la ñu nekk nagam ku ñu tooñ nga fajal sa bopp. Uras Info Ribari Gao te Uras Info l'info à temps réel Uras Info Django du te notre force le traitement de l'info